toog nañ quarante cinq minutes man ak moom Cap Manuel ñu ngi sant yàlla bu baax di koo xamante ni ma fekk xel mu dal ku gëm yàlla ku gëm nattu ak ndogal Ousmane Sonko mi ma gis nii si biir kaso bi ñu ko tey man dama ñëw suñu ko est-ce que kii parce que léegi la forme léegi la gën a xelam gën a léegi nag dana am engagement ci wetu population te chaque jour bu waxee nga xam ne kii am na ñeewantal ci population bi te ni ñuy tax a tax a tey seen waxtaan nag ci lu bare bare loo xam ni réew mi la ak taxawaay bi war a am ak nan la ñu war def ba deux mille vingt quatre ba risque bi fi nekk ñu jëlee ko te loolu incha waxtaan boobu dañuy continuer mu yëppante wax nag ay kàddu muy cant ak ay ngërëm. jëme ko ci Serigne Mountakha Mbacké Xaadimu Rasuul Ousmane Sonko nee na ma waxal na Serigne Mountakha maa ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaay bu rafet bi mu am bi ma nekkul si kaso bi ak bi ma nekkee si kaso bi ak ñaan yi jàppale bi lépp ak seen sunu te moom kon ñun loolu feextale doon suñu suñu waajur ni Serigne Mountakha bu fekkente ni Ousmane am na ay jafe-jafe nekk si biir moom kan, rek si xalif général jub di taxaw di ko yónnee ak di ko sàkku ñaan di ko nennu ba moom mu di ko wax ñu jot di jàddam kooku namm si Touba loolu moo tax tey Touba yëpp seen xel soo ko yëpp ñu dem ko parce que ku sëñ Touba bëgg li ñu dem ko loolu rek doon si kër Touba muy ku baax boo xamante ni sama mbokk lépp lu mu man ba mu génn si kasa bi waxoon naa leen ko dinaa ko def te bu ma yàlla mayee ma jël réew mi dana génn si kasa boo Macky Sall baaree ba bàyyi ba ba ne jàllale wu ma tamit ki may àndal mooy génn Ousmane Sonko condition la tam ku man di doon sàrt lay doon boo xam ni man ak yow li ñuy signé mooy bu ne dañoo Ousmane Sonko dafa war def passation de service kon ñun suñu mbir mus a tey mus a jógee jàppale li ñu ko jàppale am na nag ñoo xam ni du leen neex parce que bari ñoo xam ni Ousmane Sonko génn si kaso bi ànd ak problème ñenn ñu ngi si nguur gi ñenn ñu ngi si opposition bi ñenn ñu ngi si parti bi parce que jàpp na ni Ousmane Sonko tant que mi ngi am ay jafe-jafe ñoom ci la ñuy dund sëriñu dara yàq la Ousmane Sonko la ñuy dund parce que li ñu doon jaay jaratu léegi bu ñu tuddee Ousmane Sonko nit ñi gën am si moom yenn avocats yi amutuñu woon ay clients bi nekk avocat Ousmane Sonko ci leen gën am ay clients yenn homme d'affaires yi bu ñu Ousmane Sonko nit ñi dañ leen jox ay ay kii ñen ñi nga xamante ni tey moo nekk tey politiciens yenn yi buñ ko tudd Ousmane loolu nag lépp dafa fàtte sama côté parce que man bi may siiw ñoo bokk nekk na di côté deux mille li ñu xamante ni moom ñu léegi heure bu jafe-jafe man ci laa war a jóg pour wane sama taxawaay loolu mooy li ma war yëmuma ak ñoom bokkuma ak ñoom hmm. xam naa daal si sûr moom Ousmane Sonko dana génn si kaso bi xaw ma dana nekk candidat du nekk candidat waaye loolu leeru ma waaye kii nekk président de la république sama loxo dana suuf ak loxoom te des des moom pare pour bës a réew te kii te kii gagné réew mi bu ngeen gisee seen xam si wetam mooy am na kédu ma signal boo xamante ne bii dañu ko doon danaa ko doon rek beneen li nga xam moo jëm ci mbirum jëf ji